golle bonde en ɗon boni daretuna fuɗɗi fuyni ausubillahi mina seytani rajim inna dillahi wa inna ilayhi rajiun waa Ziguinchor waa Sénégal ñëpp ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tuur ak sa sant tey liñ fi daj liñ fi toog liñ fi tax a toog neexul ndax naqar la boo xam ne metti na torop bu daloon mag sax metti na ak sama xale bu ndaw boo xam ne xamul mënul gisul te lieu bu mu am aussi lieu bi man dem naa ba foofu démb lieu bi c'est pas sécurisé bu ñu sañoon man maa ngi wax ci tuuru borom kër gi ak ay jabaram boroom kër gi presque mën naa ne sama frère la léppam suñu kër la koy def keroog bi mu ñëwee ne ma sama doom réer na ma ne ko dawal gaaw mu xëy lendemain bi dégguma ko ma ojoo ko mu ne ma xale baa ngi nii retrouver nañ ko waaye dañ ko rendi comme ganaar ñu sànni ko ci sama gannaaw douche bi ci laa ne sama yaay nañu préparer wu ñu dem foofu ñu dem yegg ñu fekk tel est le cas ñu fekk fa sapeur pompier ak ñëpp sapeur yi sax dañoo crever woon foofu mais pour ñu sécuriser ren sax problème la ndax lieu boobu c'est pas sécurisé may ñaak waa Sénégal waa Afrique képp koo xam ne am nga mën-mën am nga sañ-sañ dimbali nit ñi dimbali askan bi surtout waa kanten googu ñu dimbali leen foofu mag magum jëmm sax bu ñu la fa téyee mën nañ la fa rendi sax te doo am ku lay ñëw sécuriser surtout xale bu ndaw foofu isole na torop isole na torop te métti na ci bépp jigéen surtout maa góor nga jur sa doom feebarul nga dem ak moom hôpital lu dul nga génn ñëw ñu ne la jël nañ sa doom rendi ko ni ginaar métti na torop ñëpp xam nañ ne loolu neexul ci xol neexul ci xol man mi wax ak yéen nii bokk naa ci famille bari bi bari dafa ma téye ni sœur léppam sama kër la koy defee gënalul kenn gënalul kenn ñu ngi leen di ñaan dimbal ngeen dimbali ñu moo xam poste de police police la ñuy am foofu moo xam da ngeen di avertir ñoo xam ne ñu ngi jënd foofu terrain te lieu bi du foo xam ne ni peuplé na pour l'instant ñu xëcc ñi fa nekk ñu ñëw toogagum bokk ak nit ñi ba lieu bi peuplé ñu am ñu leen di wéttali ñu dem dëkk foofu mais fi mu nekk nii lieu bi dafa dafa wéet torop du lieu boo xam ne borom njaboot war na fa dëkk nga xëy nga bàyyi sa njaboot yi foofu ne leen nañu dem yaa ngi dem wuti xale yaa ngi foofu ñu war a dem jàngi aussi lieu bi lieu bi isolé na torop man loolu laa amoon di leen wax di ko wax képp koo xam ne am nga moyen am nga possibilité pour dimbali ñu surtout gouvernement bi aussi ñu dimbali ñu ñu dimbali ñu torop ndax lii moom metti na metti na ci bépp doomu aadama surtout jigéen ñépp xam nañ jureel nu mu métti yàlla ni la ko ndogalee lii moo gën a baax xale bi lii moo gën a si man moo gën si yaayam lii moom gom naa loolu parce que ma ala kullu xaal lu yàlla nomal rek loolu rekk la mun a nekk léegi lii dama ñaan borom bi subhanahu wa yéen suma mbokk jullit yi ngeen ñaanal ma borom bi subhaanahu wa taala e yàlla yombal ma suma doom bi mun a dugg aljannatul firdaws e troisième bi ñu ñaanal ma man papam ak yaayam ak mbokk jullit yëpp yàlla yàlla may ñu ay xol buy mun a góom ndogal borom bi subhaanahu wa ñaanal allah ñaanal ñu man tamit pour yalla aar ma ak suma njaboot yi yuy setan yi bi bii ku seytaane la ku def li setan la yen mbokk juliti ngeen ñaanal ma borom subhanahu wa taala yalla yalla weñal waaji bi ku def li yalla yalla weñ ko parce que ki limu def ni eh, dafa rendi nit comme ganaar dafa ko rendi bima démé ci armée bi gaay sa ñëméwul man ma ñeeme jege suma doom simiko, ko génn bi yëkëti ko raas ci bir lépp daga ko comme li ñu daggee day dama bëgg ñaan homme de tenue yi Sénégal ganaan yokkas sécurité si dëkk bi surtout koñ yi ay boy yu bari do xam fa nakala foofu non bari na ay boo yu bari soo laajtee leen du ñu dégg saa nak nag nga nekkee si réew jaambur doo dégg dara ngay tamit ngay liggéey amuloo kayit amuloo leneen lii yëpp bi de eh, surveille dafa jara am surveillant képp ku amante ne da nga bëgg a dëkk bi nga bëgg a da nga jar am papier nga am lépp loolu dafa jara war te tamit nga ànd ak comme nga mel comme nit booy bare soo dajee amoon day soo gisee sax da nga xam ne lii moom dafa ñaaw parce que man du ay sol cool bu rafet du am kanam kanam boo xamante ne kanam boo soo ko gisee nga xam ne kii maam jaamkat yàlla la day mel comme ay kàccapaan ni dëkk si def lu leen ne ah lii dafa jara deñ loolu lii lii laa jara ñaan waa dëkk bi gën a toppatoo

lenn la quoi état dañu war a jàppale si électricité bi bon loolu yëpp doyul quoi électricité doyul amuñu lotissement en plus dëkk dëkk bi dafa lëndëm quoi côté bi dafa lëndëm trop moo tax genre di am quoi. bon état bi daal à chaque fois ñu leen koy kaas quoi chaque fois dañuy dox ci noonu pour ñu jàppale ñu si côté yoon bi lotissement bi euh, lumière bi électricité bi doyul tamit si koñ bi parce que boo gisee genre di am yaakaar naa loolu noonu la quoi. à chaque fois ñun dañuy dañuy doo ci kaw yooyu noonu dañuy politique pour suñu quartier mu am loolu noonu mais ba léegi mënuñ ko am te ñu ngi ñaan état bi euh, ñu ñu ngi def quoi ñun daal ñu ngi def lu ñu mën ñu ngi ñaan état bi chaque fois xam nga mu jàppale ñu ci kaw loolu noonu quoi na suñu quartier mën a am lumière bu doy bon am nañu ay leader politique mais ah def nañ lépp quoi ñun essayé nañ def lépp quoi topp nañ seen ginnaaw bon mais ba léegi dara sotewul te bàyyi ñu tamit quoi ba léegi ñu ci kawam waaw ñu daal dañuy politique pour suñu quartier ñu mën a am li nga xam ne bëgg nañ ko quoi mooy lumière bi lotissement bi yoon bi baaxul en plus am nga boo fi ñëw sax gis ngeen yoon bi nu mu mel dañuy fi nekk à chaque fois di naan poussière camion yi ñuy sonal mais loolu yëpp taxul ñu ngi ñun ñu ngi def lu ñu mën quoi yoon bi baare nañ ko euh, ñoo nañu naan ñoo ñu génnee barrage. Ah, li ñu leen bëgg a wax dimbal ñu dimbal ñu sécurité bi yokk pour ñu mën a sàmm suñu doom yi ak suñu njaboot yëpp. parce que ñu amuñu doole il faut gouvernement bi jël beneen genre de sécurité pour ñu sécuriser pour ñu jaar aar aar seen bopp ak suñu xale yi loolu bugga bëgg a dimbal ñu. et bien yokkal yoon yi ak yoon yi lumière dafa manqué sécurité bi bokk na ci ñàkk lumière bi mooy loolu laa bëgg a wax. Balde euh, chaque jour mu ñëw du ñu promettre ay promesses yi nga ni chaque fois daf ñu koy wax duñ ko gis mais taxul tam ñu ngi ñu ngi xeex du ñu sonn parce que loo bëgg moom bon nank-nank rek di ko jot quoi. donc nga jur sa doom dërëm wokku ko nga tudd ko nga yor ko feebarul lu dul nga dégg ne nit xëy na jël ko dem rendi ko kenn xamul borom lu mu ko doyee waaye bàyyee nañ ko yàlla yàlla mi yor fayam yàlla ko fay li mu def fay ko ko àdduna fay ko àllaaxira